waaw sëñ bi dama ko ne daaw sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa daje woon nañ fii ci ci ki yëf yi muy doxaluk taalibeem nangu nangu ndigal ba muy jox addiyee sëñ baara daa laxasaayoon daaw ba ñuy bëgg màggal nag sëñ bi ne bu safar teroon na dem ca penku su jumaa ja ngeen fekk ko ñi jàng fay xasaayit fanaan fa ba suba laa leen ni ni nguur di def de sëñ biir de xawma seen biir waaye daa mel ne passation de service lañ doon def te loolu ma doon wax yàlla def na ko passation de service sëñ Muntaxa da ko doon joxaat sëñ sëñ Abdu sëñ Cheikh Mati da ko doon jox sëñ Muntaxa yoonu yoonu sëñ Touba waxtu wu ne dana seet ku ko mën a yor mu teg ko ci say loxo dama leen ne nun taalibe yi neen dëggal dëggal doo ngay leen dese mooy mooy leen war itam te li sëñ bi santaan def ko Cheikh Ibra da ne woon ab taalibe bu sëñ Bàmba meree nan naaj bu soxlaa nu ñàkk mooy dëgg joxe sunu ñaq am ñaq dee su ko moom ci jëw jàmbur li sëñ bi santaan nañ ciy denc nañ ciy sax waaye denc bari ba noppi fab lu tuuti jox sëñ bi damaa daje woon ak waa joo xam ne day wër jumaa ji ne dañ koo tafu 2 millions ma ne ko loo loo teg ci barab bi mu ne ma ñaari téeméer ma ko ñaari téeméer booy suñ booy dugal suñ tubaa ñaari millions yokku na jox la ko fa yóbbu nan sax ci taali bi sax ci jub toj suñ xol yi nangoo jox suñ tubaa addi yi Cheikh Ibra da doon alal yi suñ tubaa yi laaj la soxla xol yi la soxla ilaa man ataala bi xal bin salim ak xol xal bun mutmainatu yooyu yi la sëñ bi la sëñ bi soxla daa bëgg a defar xol yi moo tax mu di leen laaj alal yi ndax fii ne dëkk boo dégg na lakk na banque ba sa alal ne moom da nga laaj ba xam egg na fa déet na sëñ tubaa di suñ banque